Euh, mbokk internet yi dal leen ak jàmm dalati leen ak jàmm ci seen chaîne YouTube bi IYAT TV comme niñ koy faral di defee rek ci jàngat yu yaa yi nga xam ne rek ñi ngi koy amal sa sune ne yoon nag dañuy dellusiwaat ci ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko gannaaw nag ba mu amalee li nga xam ne rek moom mooy ab tek ab diir bu nga xam ne rek gisuñu benn activité bu nga xam ne rek mi ngi koy def rawatina sax ci géewu politique gi. mel na ne nag tekk googe ma ngi say commencé di jóge moom mii nga xam ne gannaaw dernier procès bi nga xam ne rek jotoon na ko am ak kii nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang ba ñu daal di kasi woona daan li nga xam ne rek moom mooy ñaari weeri kaso bile yoon nag mu daal di fas yéene génnaat continuer li nga xam ne rek moom mooy ay activité am fii ci diwaanu Sénégal looloo tax mu xëy daal di posté ci page Facebook moom mi nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko. nekkat fa seeni naa dellusiwaat ci li nga xam ne rek moom mooy géewu politique gi fa séenee waxal ji nga xam ne rek ñoom ñooy ay alliéem ci wàllu politique rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy patriotes yi gannaaw ba mu daal dee nuyoo jot a xamle moom mii di Ousmane Sonko nekkat dina commencé waat li nga xam ne rek moom mooy dox bi ak nemmeeku bi doore ko ci le 24 au 27 avril 2023 doore li nga xam ne rek moom mooy nemmeeku bi foofu foofale ca diwaanu Ziguinchor jàpp diwaanu bi ñoo Bignona gannaaw ba mu xamle li ni mel nekkat loolu mooy tomb bi nga xam ne rek mooy tomb bi njëkk nga xam ne suñu génn lay doon gannaaw biñ laloo ay weer fa séenee xoolaat toogaat seetluwaat talaata lii nga xam ne moom mooy suñuy cumbikaay deuxième point bi moom mii di Ousmane Sonko jot a xamle ne le 29 avril au 7 mai 2023 nemmeeku tuur yi dina ko daal di foofu foofale ca diwaanu Tiwaawoon jàpp diwaanu Thiès nekkat du bàyyi dara dina fa yéene taxaw taxawaat xool seetluwaat seetantal géewu politique gi ni nga xam ne rek noonu lañ fiy dundee gannaaw bi mu amalee li nga xam ne rek moom mooy ab lël diir bu yàgg ne mbir minimelkat moom mii di Ousmane Sonko di xam ne du ci des gannaaw te dina taxaw bu baax a baax a baax fas yéenee delloosiwaat ndawi Pastef yi nga xam ne rek yàgg nañ ci li nga xam ne moom mooy biir réew mi wante kat gisatuñ ba tey loo xam ne rek dina mën a faj lii di seeni mar ba tax ñoom it ñu daal di gëj a gis ki nga xam ne rek moom mooy patriote bu mag bi di président Ousmane Sonko ni ki démb nag ci poste bi nga xam ne rek def na ko mën nañ ñi defaat na li nga xam mooy révélation ci troisième point bi nga xam ne rek moom mii di Ousmane Sonko jot na see wax daal di bàyyiloo xel ñëpp ne leen kat mais dafa nekk nag mbir mu nga xam ne rek ci 2023 bi la war a xewee wante surprise la koy def moom mii di Ousmane Sonko jot a xam ne li ni mel nekkat surprise boobee du ko bàyyi ak kenn wante kat du ci yëy te du ci yàbbi nekkat jamono yi ñu toll nii bu fekkente ne da ngaa bëgg a rëcc mën nañ ne la da ngay nëbb say soxla ki sol daal ak ki solul daal loolee moom la kii di Ousmane Sonko daal di jëfandikoo maanaam utiliser ko ci anam bu nga xam ne rek anam bu ñëpp gërëm la nekkat surprise boobee nga xam ne rek ñu baree baree bari jamono yi ñu toll nii ñu ngi jéem a dañ kumpa nekkat lan la war a doon wante li olof njaay di wax sotti xam nekkat lu nekk ci biir cin la fikti jiwoo ko mën a goo xam exact lan moo nekk ci biir daal dem naka ba ci lëkkaat loola sax euh, quatrième point bi di le 12 mai 2023 mu daal di xamle ne am na ay manifestation yu nga xam ne rek war nañ koo amal du F24 moom mii di président Ousmane Sonko moo jot a xamle li ni mel kenekat mbir moomee war a nekk mbir mu nga xam ne rek ñu baree baree baree bari war nañoo taxaw bàyyi si xel kenekat mbir yi fi mu toll nii dafa metti lool te métti gi foo ko takk weesu na ko kon nag manifestation yi nga xam ne war nañ koo amal diwoo képp koo xam ne góor jigéen mag ak ndaw nga nekkat suñu réew mii dañ koo war a defar loolu de xam naa ne bis bu ko imaam déggee dina yóbbooti ñëpp safara nekkat moom mii nga xam ne mooy imam bu grande mosquée jotoon na fee génn gannaaw ci feet korité yi nga xam ne rek mu la ñu passé ne képp ku ci dee safara nga jëm loole kat ñuy ñaan yàlla bu mu am yàlla bu ci kenn dee ndaxte ñun liñ bëgg du ak faatu dañoo bëgg rek suñu réew mii di Sénégal defaruwaata teguwaat ci yoon teguwaat ci yoon googee nag mënta am lu dul ne kat dañoo daal di fas yéene xool taxaw taxawaat seetluwaat suñum réew naka lay doxee ci bépp côté ci bépp anam bu fekkente ne loolu amul mën nañ problème day daal di am euh, kon nag tey génn bi nga xam ne rek kii di Ousmane Sonko mi ngi koy préparé nekk génn bu nga xam ne nag sénégalais yu baree baree bari ñi ngi doon toog di ko xaar gannaaw nag lëlu bu nga xam ne rek nemmeeku nañ ko mu nekk lëlu bu nga xam ne neexul woon ñu bari wante kat li olof Njaay di wax xar dawul dafa wuti doole nekkat reculer pour mieux sauter moom mooy nekk li nga xam ne rek léeg dina la jariñ te mooy nekk li nga xam ne léeg moom mooy gën ci yow ba ñu bari daal dafa jot moom mii di Ousmane Sonko mu continuer li nga xam ne moom mooy nemmeeku tuur yi ndaxte kat suñ président de la république comme que jéemuta dugg ci li nga xam ne rek moom mooy village yi xam li ñuy dund xam li nga xam ne rek exactement moo fa xew kon nag dafa jaadu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi te tamit di dagaan baatu askan wi nekkat bëgg nañoo nekk li nga xam ne moom mooy président ci élection 2024 yi nga xam ne rek moom dëgmal war nañoo xam dëkki kaw yi li ñuy dund dëgg ci ay coono ci ay jafe-jafe ci manque yoon manque ndox ak courant ak ya ca aju nga xam ne kat mën nañ ak fi réew mi tollu jamono yi ñu toll nii dëkk bu ko amul dangaa nekk ci dëkk yi nga xam ne rek yéen a gën a dellu gannaaw te dellu gannaaw googee nag fii ci diwaanu Sénégal mën nañ ne sax waxuñu dëkk ya wante réew mi ci boppam dellu gannaaw gum dellu gannaaw tax na ñu baree bari ci sénégalais yi bëggatuñ fee dëkk wala bokk ñu baree bari ci sénégalais yi bëggatuñ fee am kër ndaxte li leen metti naqari leen ñu mujj di ko def jooyu xool ndaxte xam nañ ne buñ ko defee jooy bu nga xam ne rek ci penc mi la kenn du leen faale te kenn du leen nax ba yegg ci sax duñ gis koo xam ne tey dina leen fompal li nga xam ne moom mooy seeni rangooñ mbir moomee nag nekk mbir mu nga xam ne jaaxal na sénégalais yëpp kon nag bu ñu mu daal di xamle ay date yu nga xam ne rek dina ci amal amal yëngu ak yëngal def ko nag ci jàmm ak salaam fa seenee dellawaata buum ca mboy mbooy ga ne kat day nekk lu nga xam ne rek lu rafet la ndaxte kat yàgg nañoo toog du ñu gis li nga xam ne rek moom la ñu bëgg kon bu ñu gisee kuy dikk waaxu yegg si ba yegg ba dikk ci li xam ne rek moom mooy suñuy waxande fa seenee waxtaan ak ñun duñ def lu dul d'accord ak moom duñ def lu dul ànd ak moom ci décision bi nga xam ne rek bëgg na koo jël kon nag mi nga xam ne mooy président Ousmane Sonko daal naal naal bi ni mel te mën nañ ne ku naal naal bi ni mel lekk boo amul sens dinañ la sàkkal pexe tax yërmande ak ñeewant daal di daw jëm ci moom nekkat bu fekkente ne amul sens dëgg dinañ ko fakastal galgal ci wàllu politique nekkat du moom dong rek lañ ko fi mës a def kon nag góorgóorlu takku taxaw nekk mbir mu nga xam ne rek moo koy yeggale fa mu jëm en tant que ku nga xam ne rek yaa ngi yootu li nga xam ne rek moom mooy baatu askan wi di ko dagaan saa su ne li nga ne moom mooy sa candidature ci élection 2024 yi nga xam rek moom la ñu dëgmal te képp ku nga xam ne nag soobu nga yoon woowee na nga xam ne kat yaa ngi soobu mbir mu nga xam ne rek mu jafe-jafe jafe la ndaxte kat gis nañ ñu fa fii ay gaay yu bare bari ku ci mel ne ki nga xam ne moom mooy